alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala rasulillah wa rahmatullahi wa barakatu ñu ngi yëkkati sunu kàddu ci ndigalul Cheikh Abdou Fatah mi nga xam ne mooy yor kàddu kër Cheikh Mouhamadou waaye mooy jëwriñu màggal Kazu Rajab ñu ñëw daje fii tey ci këram moom boole mag ak Cheikh Abdou yi ñu war yëkkati kàddu ci turam ci ndaje mi nga xam ne moom lañu fi daje tey ñu koy tàmbalee nag ci ab nuyu akub ziar demane ko ci Cheikh Mouhamed Yoon Muntaxa di ñaan suñu borom bàyyi ko fi te may ko wér di ñaanal nga xam ne mooy Cheikh Mouhamed Fadel ci nag ci gouverneur ak ministre de l'intérieur ci président di nuyu sëñ Abdoul Ahad nga xam ne itam mooy maire Touba te moo dalal gan ñi fii ci kër Cheikh Abdou Fatah di fàttali rek ne di tax ñu daje fi tey mooy waajal màggalu Kazu Rajab muy bis boo xam ne dafay bisu lislaam boo xam ne jullit yëpp dañ ko bokk muy am teraanga ju ci amal joo xam ne itam moom la ci borom bi subhaanahu wa taala defaloon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam muy teraanga joo xam ne ak euh, màggal goo xam ne ak mbégte moo xam ne mën nañoo wax ne mosu koo defal kenn ci yonent yi alayhim salaam li ñuy màgg màgg ak li ñuy rëy rëy sallallahu alayhi wa sallam ko jagle xar baax daje ci yërmande daje ci waaye sunu boroom nag farataal ci ponk bi gën a mag ci lislaam muy julli nga xam ne gannaaw shahada yi julli mooy ponk bi gën a dëgër ci lislaam ci bis bii la ko sunu borom joxe woon sallallahu alayhi wa sallam muy mu ko am xeetam ci njëlbeen nga mu doonoon juróom fukki julli di ko Cheikh Mahamadou Fadil nettalee ñu dégg waaye yërmande mu wàññi ko ba mu doon juróomi julli waaye sunu borom baaxee na ci nag Cheikh Mahamadou Fadil mi nga xam ne ci bis bii la feeñ muy ñaar fukki fan ak juróom ñaar ci weeru rajab moom ci boppam nag moo daan def bu ñëwee mu dem Daaru Salaam bu fa jógee jaar ci Seydi Afiya Ahmad ñaan soxna Xawa Bousso waaye gannaawam Cheikh Mahamadou Moussa Faw bi di ko woote ànd ko Cheikh Mahamadou Lamine ak Cheikh Abdou Baraka ak Cheikh Abdou Fatah ñi nga xam ne naka jekk moo jëwriñ ji ak Cheikh Mahamadou Moutala seen ko bokk jullit yëpp waaye ni ñu ko waxee muy bis boo xam ne bisu lislaam bisu jullit yëpp la waaye bisu yoonu murid yëpp la démb rek am na kilifa gu wax gu wax ne maa ngi topp waxtaan yi ngeen di def ak ndaje yi waaye màggalu Kazu Rajab moom nit ñee ko bokk waaye ñoo ko téyeel seen bopp bu kenn woote wutoon kenn waxuti ñëpp danañ ko màggal dañ ko daan màggal daal ne ñun kenn ku ci ne lam ci am ciw gan mën naa wax ne du ko am daanaka ci weneen ci weneen ci weneen xew kon loolu doon wax sunu borom da ko fayee Cheikh Mouhamadou Fabou ci woote gi nga xam ne wootee loolu na ko màggalu Tuubaa bu xam ne li ci nekk ci njariñ ci wàllu roox waaye li ci nekk ci njariñ nag ci wàllu àdduna itam ci wàllu zaahir lu bare bare ndax ku ne xam ne Magal Touba li mu dugal ci am koom ci réew mi ku ne xam na te loolu dañuy wax ne bu jàllee màgg Kazu Rajab moo ci topp kon alhamdulilah yal nañu fi Cheikh Mouhamadou mu tàmbalee léegi itam sëriñ bi mboolem njaboot gi maase nañ ci ni nga digle woon nu di ko def mooy waajal ko ci jàng alquran karim waajal ko ci def ay istixfaar di def salaatu ala nabi waaye di ko def addiya Cheikh Mouhamadou Fadel waaye nag Cheikh Amadou Fadil bis bi mu wàcc muy al isra wal miraaj di ci weeru rajab nga xam ne weeru rajab ci boppam day weer wu màgg woo xam ne li ci nekk ci ngëneel kenn xamul lu tax naka jekk itam weer wuñ warmal la weer wuñ la weer wu solo la waaye rawatina bis bii dañuy def at mu jot nag sëti Cheikh Amadou Fadil bi ñi nga xam ne ñooy njaboot bi tànn tomb boo xam ne moom lañuy ñuy waxtaane ren nag dafa mel ne dañoo tàmmoon dañoo tànnoon nafaraat lislaam tàmbalee ca ponk ba ci njëkk ca mooy al iman waaye bokk ci al islam muy sha'ir yëpp ñu topp ko benn par benn tàmbalee ci julli ak koor ak aj Makka ci ku ko man ak natt xasaka di ko nafar di ko lënkale ak Cheikh Mouhamadou bu ci nekk ñu wax nam ko doon dundale nam ko doon taxawale waaye nam ci daan waaye al ihsaan nag nga xam ne mooy mën nañu wax ne a tasawuf waaye boobu ñu jël ci xidma nga xam ne Cheikh Mouhamadou Fadel ku ne xam ne ni mu doon taxawale ci xidma te xidma mooy nga def lu baax ngir yàlla defal ko ab jaam te yàlla rek tax ak ku mën di doon rek def lu baax jëmee ko ci jaamu yàlla yi te yàlla tax loolu ku ne ne xam na ne Cheikh Mamadou Fall bi royukaay la ci wàll nafaraat nañ ci lu yaatoo yaatu ci ni mu ko doon jëfe ni mu ko doon soññee waaye ni nga xam ne noonu la ko doon jàngalee ba fii mu nekk nii kon wax nañ xam nañ ne wàllu administration bi alhamdulilah li fi wax dal na xel ba jàpp nañ ne bu suñu borom dogalee lépp sotti kon alhamdulilah rek la ñuy wax waaye wàllu waajtaayu ruux bi nag nga xam ne mooy li ci ëpp solo moom itam ñu ngi koy def bu baax a baax a baax bañ tàmbalee ci ba di ñaan lu fekk ko ci jàmm ak salaam di wax sëriñ bi nee na ne ñëpp ñëw képp ku daan ñëw te yàlla man loolu ko na nga ñëw ku daawul ñëw te man ko na nga ñëw te xam ne bisu xéewal la bisu nangu ñaan la bisu bisu yërmande la bisu njëgal la te sunu borom yërmandeem ak màggaayam kawe na ëppante nag li fi daje ci mbooloo tase fi ñaan ko mu di leen delloo laxe gis ci sama Mahamadul Fadil daan wax ne fii yaakaar bu fi tase kon képp kuy ñëw lépp loo am ci soxla lu mu rëy ci sa xalaat ak ci yow jàppal ne lu tuuti la ci sunu borom ci mu faj te suñu borom yërmandeem ak nangul gim nangul Cheikhul Khadim nangul Cheikh naa Mouhamadul Fadil rawatina nit di fi indi tawat wala jàngooro wala aajo di dal loxoy kese kon sëriñ bi nee ñëpp ñu ñëw ci jàmm ak salaam di ñaan ñu ñëw ci jàmm nekk fi ci jàmm dellu fi ci jàmm te lépp lu ñu fi ñaan suñu borom nangu di wax ne itam ñi nga xam ne ñooy ñoo yor wata yi indi nit ñi dana fàttali li nga xam ne Cheikh Mouhamadul Fadil daana ko wax nee na oto da nga naan nikk ne jàkk bu ne tacc nga ne tekk bu ne yaay yi nga ne yoll kon loolu ñu ngi koy fàttali itam chauffeur yi nga xam ne ñooy indi nit ñi xam ne nit ñi jóg lañ di siyaare si seenu sëy di di di sàkku si yi di faju kon ku leen di indi war ngaa xam ne ña nga la nga sëf na mu toll te yànd ci tey ak mu dal di ñaan suñu borom bàyyi ñu sëriñ bi te may ko wér mu yàgg jiite liggéey mu yàgg a topp ci gannaaw Cheikh Abdou Baraka sunu borom may ko wér ba li mu yéene liggéey ci kër yëpp mën koo liggéey ànd ko di sant ñëpp di gërëm ñëpp di sant taskati xibaar yi ndax xam nañ ne màggalu ko Rajab yëpp addina bépp lañ koy màgg mooy màggal goo xam ne mën nga ne foofu sénégalais nekk lañ ko fay dundal ci biir réew mi waaye rawatina bitim réew bu jàllee dañuy yónnee ay xew-xew yoo xam ne da nga naan lii ndekete am na fu muy xew ci àdduna bi ñu ko def ngir fàttaliku bisu Cheikh Mahamadou Fadal di ko fàttaliku di ko ñaan ñaan ci barkeem di ko ñaanal suñu borom yokk ay leeram te donc loolu li ñoo tax ci barkeem ndax ñaan du doy sallallahu alayhi moo wax ne ñaan loolu moo tax kon nañ yokk njàngum alxuraan mi lañ ko daan defee yokk eh, njàngum xasaayid mi nga xam ne lépp génnut a ak sunna waaye dolli salawaatu ala nabi yi dolli istighfaar yi dolli dikrullah yi yëpp def ko addi Cheikh Mouhamadou Fadil ak ñu